asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Gambia di nuyu képp kuy seetaan Sahel Network TV nuyu kilifa diine yi kilifa aaday di ñaanal ñu tëdd ci lali hôpital yi kër yi yàlla wéral leen ñu jóg doxi seen soxla di ñaanal ñu caabi te gannaaw it yàlla dimbale leen bañ dellu seen i njaboot ay chaque Adam ñoo leen dellu si waat seen beneen euh, édition of yóbbalu bés bi kon damay bàyyi Adam mu nuyoo rek suñ paree ñu dalal gan bi nga xamante ne moom la invite tey si biir studio waaw Aïssa jërëjëf nuyu naa la asalaamualeykum àdduna asalaamualeykum Gambia wërngal képp ñu ngeen nuyu ku nekk di leen wax ne ñun la waa Sahel Network TV ñoo fi dellu si waat ànd ak yéen si beneen yóbbali bés bi. comme niñ ko daan defee rek. <laughs> <laughs> kon nag euh, thank you so much Ada sa nuyu rafet na tara macha allah tey ñu ngi am si studio bi ku ñu wax Mutar Diallo mu nekk ndaw bu am jom ci li nga xamante ne loolu la nekk di def moom nag mu ngi yëngu si wàllum. events planning ak decoration. Mhm. moom nag mu ngi dëkk foofu si Serekunda London Corner jaar na foofu si Latrikunda school jaar Nusra dem tamit UTG kii macha allah <laughs> léegi nag dañ koy bàyyi rek moom mu taat jàll. Mhm. mu dalal boppam mu nuyoo tamit ñi nga xam ne ñooy seetaan Moussa euh, Mouta <laughs> dalal ak jàmm. <laughs> Um, assalamualaikum um, ma ne laa nuyu ak seen santa maa ngi si Sahel um, si ma invite si programme Sela bi mm -hmm. Thank you so much, Mushar. That's very cool. Nuyo bi rafet na torop ah ada bu kee dafa mel ni moom da ko pare la loo mel Lagi biir bi fees na moom waaw nga. Mushar dama bëgg nga wax ñu comme depuis kañ nga door event planning bi nii decoration Bini. Um, event planning and decoration, Manco start formally in 2018. Um, but before that, um, Tamakoron Def like just for fun, you know, for free. Um, since I was in high school, mm-hmm. um, the manan organized programs like in the house, yini, hanga. Mm-hmm. So manamaya gasi events, mm-hmm. and also like some friends, he yep man malenda hanga organize certain sunyame wedding, sunyame parties, mm-hmm. hanga masih de tahu bemba. Banyak dari ada bagasi. Yeah, yeah, it's <laughs> very um sunbo kai si coin be everyone. Mm-hmm. Ko am um, like decoration like hanga come. So ngay amee weddings ma maa dee dem decorate moto yi xam nga it's like yàgg na you know I mm-hmm. cannot tell it was like long time ago mm-hmm. um, but recently um, when I can see university be and, um, and, I, and I realized that um, I really need to formalize myself to build your person, mm -hmm. uh, a business around your person. Um, so in 2018, uh, my Marigista City Events. Yeah, city events as an event planning. Um, from there, my first contract was with um, Ajib Bank mm. uh, for the Ramadan decorations, mm and mm-hmm. then macha allah mu taar moom jàmbaar la macha allah loolu moom am na solo mu ne depuis 2018 kon nag ana dama waaw gis nga euh, mu ñu gis ne mu doon jàmbaar yaa ngi xarañ lool si li mm-hmm. ngaa liggéey euh, comme wax nga nit ñi comme man ma ngi la bëggoon a laaj sax kañ nga start sa first event plan bi mm-hmm. wala wax nga fi ko defee euh, man ma bëggoon a laaj te mu taar dañ gisoon sa lii mu ngi nekkoon sa turi first bi mu ngi nekkoon event lii city event léegi how léegi city event yi ñoo toog dégg jolof Balifin events so ñu bëggoon nga leeralal ñu tuuti si loolu. ok um, city events bi boobu noonu ma ngi ko jëlee Nigeria um, in just in early 2018 dama demoon Nigeria for a program mm -hmm. um, um, it was an um, it's a leadership program and entrepreneurship as mm -hmm. well sponsored by the US government um, from there we were doing like kind of pitching competitions and then <clears throat> uh, one of the groups there came up with an event planning business it was not my group, you know, Nikoton mm. Susuma Group but then it's, it's another group. So mm. they came up, they pitched their idea, they called their business City Events. Hang on, Um, business, business group, good rentals, and so on, you know. Mm -hmm. So from there on, I'm like, wow, Nissan idea is nice. When I go back to the Gambia, mm -hmm. I'm going to name my business City Events because I like event planning. Yeah. So when I came straight up, I did not hesitate. Madam straight, my register my business as City Events. Mm-hmm. Um, I'm one year after, um, I realized City Events. Um, nekkul loo xam ne Gambia fi we related to that much. Mm-hmm. ba pare <coughs> um, maa big long term goal. Um, the Mabugana are the biggest events company in, in Africa, mm -hmm. um, starting with Gambia and Senegal. Mm -hmm. So, when I band tour, moy nek tour everyone can relate to it. Jollof because when when when I establish myself here, I want to go straight to Senegal. Mm -hmm. So I want to be like the, the household name for events in, in, in the Senegambia area. Mm-hmm. And also when I go to Nigeria, Ghana, they know Jollof rice, so they can easily relate to Jollof. So I I changed the name straight up. Now it's Jollof Event Services. ok kon moom moom dafa mel ni maama bi moo tax mu change. parce que man soo ne Jolof si sar sar bi sar sar bi like ñoom mm-hmm. Nigeria and Ghana ñu wante ñun so waxee jollof rek Gambia Gambia Senegal, la even ñu nekk si diaspora bi so waxee jollof rek dañu xamne Gambia mais senegal Gambia Senegal, xam nga so ñu ci si area bi mm-hmm. so the the the events of the Jollof community so loolu mo dañu establish ba ba jollof nekk na lo am solo torop legi yo muhtar euh, mm-hmm. yo si weden ak bade yo ban nga ci gëna love planning Um, I can say that it's wedding, weddings because 90% of our like work is weddings. Mm. Um, bad days is something that like uh, we don't pay much attention to it. Um, actually, when we were building um, Jollof events, like we, we were building it to be like a big events company. Mm -hmm. So we see bad days as kind of like small and stuff. We were, but mom, it doesn't pay much money. No, it's not about. We be more. Um, the parents, um, um, when, when, when I train event planning, I train mm -hmm. at SS Institute. Okay. Um, um, um, awa kini anti our xaw ma na xam ko moom decoration exactly foofu laa dem intense ba pare ñoom tam like si si weddings la nga gën a yëngu ñoom tam weddings mm-hmm. so for laa actually mentality about weddings moo tax um, the structure around my business mm-hmm. is weddings jàng naa awas decoration six months um, jangan jangal mabou baax ma jadi ma je si anti awa ak ak doomam bi jex you know smart Juf, um, dimbali ne ma torop torop torop torop wane ma skill si am kontan na torop si gaa was decoration jambar ngeen amu len morom kon la jaajëfati awa comme que def me liggéey bu rafet ba tar to ci di la geureum kon nag loolu moom jaajëfal la bu baakha a baax Moutar man lu wax yow nga ne ñoo la gën a amal la comme nga moom nga gën a love to plan. ba yow wàllum coronavirus bi nga xamante ne weeru koor bi suy ñëw ñëpp a dee wa takk ma takk ma takk ma <laughs> léegi nooy def ak loolu. no actually coronavirus bi dafa affect suñu business bu baax a baax a mm, baax. Um, officially we we close um, our business in March we are not operating right now, as you can see. Okay. Um, they're going to operate, um, but um, um, um, we are able, we are still paying our staff. We are mm -hmm. operating as normal. Mm -hmm. We are paying our taxes and everything. We are doing it. Um, yeah, but what we have stopped um, operating like wedding decorations and stuff you know so lolo lolo lolo, affect na bu so right now nekkuñ kundi the benn program ni ngi ni yala na na corona bi génna Or ori pack up your bag and go <laughs> yeah. yeah, yeah. Uh, what is your biggest challenge so far? Yo tay ban jafe-jafe ngani kadi di jànkuwanteel al sisa ligi Um, it's obvious right now um, corona bi <laughs> corona waaw corona nga dem. ak ak lii tam soo xoolee am suñ business bi is is about you know staff because Gambia fii nii is very. ñu ngi amee ndaw yu bëri nag ndaw yu bëri yu yu bëgg a liggéey but sometimes um, dañ dee dañ dee nit ñoo xam ne dañ dee liggéey comme lu mm. yow loo bëgg a mm-hmm. xam nga yaa understand but it's very rare pour nga am ko mostly ñu dee gën a sawar is the Nigerians the Sierra xam nga ñooñu nga dee hire and defe xam nga so staff tam suñ suñ problème la staff development mm. loolu suñ meen wante wante big thing bi moo nekk corona bi rek corona bi moom mu ñëw voilà affect affect bu baax mais yow kon yow soo amoon uh, sañ-sañ Gambien yi ngay gën a mën a jël employé la ñu liggéeyal la comme ñuy xamante ne ñooy jóge si biti ñëw si waaw yee mm-hmm. <laughs> uh, ko defee mu gën a neex rek ànd ak ñoom ba léegi yow Moutar mhm. euh, sorry naka la Moutar la wala Matar wala <laughs> Moutar la pour mu jël touriste turinaar waaw <laughs> so léegi euh, what are your future plans in your business Oh, John of Events, John of Events is here to stay. Um, of Events, um, the biggest events company in Africa. Mm-hmm. so when So you get build of nanka nanka nanka nanka. Um, we we are we are we are, we have the plan to expand, mm-hmm. and right now our short term plan is to get into parties. days mm. and, and, and, and bridal showers and balloons as you can see in the background mm-hmm. because of the corona there um, we are not going to organize big events mm-hmm. um, so we are going to have small events like birthdays bridal showers at the house mm-hmm. so we are going to do a lot of balloon balloon work um, small events like birthdays and stuff yeah. That's our short-term plan for the corona, but the long-term plan is to actually mm-hmm. um, mm-hmm. build a lot of equipment, have depots, and then be the the, uh, the biggest events brand in in the Gambia and hopefully in Africa as well. Okay, yeah, okay. Xam nga ne war nañoo So a demoon. gis ne ah yaa ngi amee yu rafet fii si gannaaw. mu mm-hmm. doon lu am solo. Mm-hmm. So ñu bàyyi la yow nga defal ñu tuuti demonstration ah, comme sa wàllum balum yi. waaw balaa nga def <laughs> sa final word ok alright xam nga balloons moom nekkul loo xam ne dafa neex a fuuf. comme um, <laughs> ñun dañ dee fuuf thousands two thousand balloons in like one one event. yenn ngay fuuf fuf xiif. so if you can see from like our, our social media pages you can see a um, lot of balloons you see um, prepare um, kii nii tam duma duma duma wax fii nii fekk definuma waxuma gërëm gërëmuma ko moo nekk awa awa Metro Events moom tam dimbali nañu torop balloons mhm. so moom ma jox idea of ne actually mhm. you can use a machine mu wax ñu fan lañ koo jëndee ah. awa Fati Metro Events jërëjëf kontaan naa yow well ñu ah. bàyyi la mu taaru nga defal so machine bii nii lañ lañ am so nii lañ dee fuufee all the balloons that you see we blowing is not actually from our mouth <laughs> it's, it's not it's not it's not cool you know yeah. so what we actually do is we we use these balloons here no don't worry so um, yeah so here wow <laughs> yeah, so we can we can blow like millions of balloons with just this machine. Like we just for just pump it and then half an hour or <laughs> just yeah, one we hour just time. pump it and then pack it and then someone will be doing the, as, the assembling okay, and all the okay, stuff you know technology gis nga ah. <laughs> jamono fo xamne do fu fati ba nga nga fu wala nga ba sa dañoo bàyyi ya, mutar, rek mu joxe final word sax mu to ba next step, suñ ñëwaatee rek mu gën <laughs> alright xanaa um, di comme nu ko si starting bi rek xanaa um, di si yéen daal xam nga um, di wax ne city events ñu ngi pour rek ñu defar seen programme ba ngeen events ya, xam nga rek ñu events ñu defaral leen seen programme yi ba ngeen rafet you know mel ni yaa ngi yaa you know everything so so so cool, so nice. So, Jollof events. Um, so, so contact, wala sa uh, Facebook, Facebook page, uh, page Instagram, ak yooyu noonu ku la Okay, okay, all right. Um, thank you very much for that. Um, actually, ñun suñ we are we are like we are all over social media, you know. Mm-hmm. Find us on Instagram, on on Facebook, YouTube, even TikTok, you will find us there. Really? You know, Jollof <laughs> Event Services, you know. So it's all Jollof Events, J O L O F jollof. You know, many people will spell it WL, but yeah. we just want to keep it lean and simple. Yeah. So jollof events. So our number is um, 710-5673. Whoever wants to reach out to us, you can you can call us on the way on WhatsApp. Mm -hmm. You know, every time, even if you text us at, at 12 o'clock, we have a system that will reply to you automatically. So so that's it uh, thank you so much viewers yéen mi nga xamante ne doon seetaan yóbbalu bés bi tey lañ studio bi mu doon wax li rafet yi nga xamante loolu la nekk di def kon nag yéen mi seetaan trailer ngeen jël nomba yi nga xamante mu ngeen daw si suufi écran bi su ko defee ngeen mën a jokkoo moom seen birthday wedding su rek mu baax kuy invite na na ma ah ah mu doon la am